<laughs> ma ne <laughs> may mi leb na deer ba sonn. oui ah? dëgg la. mami na paas na ba sonn dem na deer. Mhm. kenn mësu ko lebal. Mhm. Mhm. mën naa la wax la moo tax kenn mënu ko lebal. buntu këram amul jaabante dugg ak génn maa ngi ñëw tegal café gi. <laughs> dañ lay lebal nga def lu la neex ñoom bu ñu def lu leen neex. Mm. loolu moo fi amoon. jërëjëf waaw yàlla la yàlla mm-hmm. xam nga dañ lay financement pour la da ngay am benn projet. boo xam da nga koy bind. ne lii ak lii laa ciy def. Mhm. benn business plan. mu wóor la ni yow bu ñu la lebalee tey benn un million. Mhm. di nga xam ci diir gu gàtt lan nga ci mën a def ak lan la mën a rapporter. Mhm. léegi projet boobu amatul woon DR. da ngay xeesal ba weex. <laughs> tatoué sa yaram bënn sa jumbax. am noo leen xoole ñu jox la ko nga dem Dubaay ñu fekk la fa. doo fay. ni ñuy fayee xam nañ ko yow mënoo koo am ndax doo ubbi. loolu c'est pas un projet ma yem foofu. Ah. d'accord mën naa yem foofu soo bëggee tam ma gën koo yaatal ma tàllal. tàllal bul firi ubbi bi. ma bàyyi noonu waaw bul firi ubbi. d'accord bon yeggali nekk na. ah loolu moo am. c'est très important ngay wax. léegi projet boo xam ne ngoone day ñëw moom ngay génnal. mu ànd ak biige biige sañ sa ba jekk ñëw mu ne la yow biige dafa bëggoon sama xarit dafa bëggoon kii nga xam ne yow am nga intérêt ci ngoone nga lebal biige mm-hmm. du fay ci jamono jooju am na ay jaaykatu jën yu yeewu marché au poisson amuñu. 6 heures du matin ngay daje ku leen ku leen jox. am ñu nekk ci ay tool yu ndaw a ndaw a mm. ndaw di def soble pomme de terre amuñu ku leen ko jox. ñu jox la ko parce que yow xaalis bi ñu la jox pour nga mën ci liggéey. Mm. financer sa bopp financer sa njaboot. Mm. après da koy dem jëndee ko ceeb. joxe ko maire bi ci koñ ba pour ñoom bu ñu ñëwee ñu xam ne yow am nga mbooloo. Mm-hmm. ñuy xool ku ñuy lebal ak ku ñu dul lebal. Mm-hmm. gis nga kàddu ay dëmbooj mm-hmm. dafa tënk lu bari. keroog ba mu ñëwee di def passation de service dafa wax ne DER am na yaay. yaay mooy kuy yëg ku tëddee jaaxaan rek koo xam ne amul xaaj amul seet. Mm-hmm. Mm-hmm. mi ngi koy tàkki ne sax di ko wax waaye xam nga mag la nag. te mag mu am fulla la mu xam. Mm-hmm. wax ko fi mu aw fi mu nekkee ministre de la femme fa mu jaar fa mu jaar nekkoon ak ñun amuñu xaaj ak seet ci opposition la bokk kii pouvoir la bokk. ndax mu soo xalaat nekk opposition. ngay na nga dem DER ñu lay lebal. mosoo xalaat di wax dëgg. nga dem dégg nga léeg-léeg dañ naan ah yow kat booy yow moom. booy statut ñee nga faral. demal ci ñoom ñooñu sax du doo jot financement. merci beaucoup bu ñu naree am ak yow partenariat wala convention sax ñu gis la. nga am noo waxee ñu ne la ah yow booy. Mhm. yow booy Sonko nga fa ñun suñu xaalis bàyyi koog ñun. dañ koy daggal sax. Mhm. d'ailleurs du pour Sonko du pour du pour Diomaye du pour Macky Sall pour askanu Sénégal la. dañ leen fa teg bu ñu nag xam ne euh, maire bi ñëw na de maire Aïda ñëw na. Mhm. te ku am fulla la ci li muy def dana gëstu. lu fa waay gox ko di nga ko goxi amul nit ki dañ ko lebal dem na Nicaragua dee na fa na ay famille fay bu dee loolu dëgg la dégg naa ah, ki xooxi ñu mu ko dee nañ ah, ko booy ñu dem ci Nicaragua ñu nga ñu dem Nicaragua seen ay nattuyaay seen ay xaalis ñu condamné woon seen dignité la ñu demee mm-hmm. naam dem boobu neexul kenn te metti na mm-hmm. ku sañoon da ngay dem AIBD dugg avion dem ñëwaat mm-hmm. mais sësoon ak ñàkk lu ñu def moo taxoon ñu ñu ñu ñu dem ko donc bu ñu jéem a ji nga ko lebaloon am na ci doomu waykat bu ma boo xam ne bàyyi milliardaire la dañ ko lebal mu ubbi salon hmm? kooku papa mënoon na ko financé hmm. pendant ce temps am na keneen koo xam ne doomu baadaloo comme man jotul ci financement boobu te pour moom lañ ko dessiné woon hmm. léegi nag mbir moom dañoo leb leb égal fay ñii lebaloon ñëpp xam nañ ko parce que répertorié nañ ko ñoom ñi lebaloon seen gel yi ak seen yaayu gel yi ñoom nañ ko fay ci xaalis bi ñu denc bu dul loolu képp koo xam ne leb nga fa kii na soxna Aïda Mbodj am fula gu day ne dañu def liste boo xam ne ñii ñooy bénéficiaires yi. Mm-hmm. lii la fa jox. lii moo ca des. ñu xam kan a kan la. bu dee boutique nga yoon nañu téye boutique ba. la fa nekk ñu évaluer ko nga fay. Mm-hmm. nga def moratoire di fay nga def moratoire di fay. Mm-hmm. bu fekkee na xaalis boo jël noose ko demee ko ca Kaiser ba baa nga demee ko teer bi baa nga jëlee ko néeg yóbbu fa iri fa sa gel fa ngeen awoon li mu awaat fa ngeen fay. yéen moom méttiwul c'est un point un lépp loo fa lekkoon nga kii waat. Ah, lu mu li mu def loolu loolu moo gën a ndaw RTS lii tey moom tey moom. maanaam a xëy si. ko sax. man ba dëkk bi amee pétrole ba léegi <laughs> li may xeeñ day neex mais nag ku ku bëgg pétrole da nga ciy benn kaas. <laughs> kii <laughs> gis nga ko kii dara ci dëkk bi kii lii ah. xoolal ban numéro la yow yow xam nga ko baax maa yow man su ma nee xam nga xam nga lu yàlla lu ko numéro commencé. ñu commencé. 29 moo ko yore yow cheikh bi. waaw loolu léegi. ma ko yor ca jamonoy Aly Ngouille Ndiaye. Mhm. te ba tey mi ngi ak 529 450 lin la 730. suñu ma wooyee ma wax leen kan la. 529 ñi koy xam nañ ko gouverneur yeeg préfet yeeg ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci police ak gendarmerie nit simple da koo yor kan moo koy fay moom fayalu ko boppam donc Pape Alé li nga li mu génne ci RTS loolu moo gën a tuuti ci li xaw am RTS muy ligne yooyu noonu te wuñ ko xam nga liggéey li ngay wooteente téléphone ak li ngay coordonné mun nañ wax ba whatsapp amee sax ak yenn yi day xaw a wàññi lu bari ci téléphone bi <coughs> mais téléphone boo xam da nga koy jël noonu juste pour fay xaalis bi di dem parce que yow sa xaalis maa la la <laughs> boo ci woon nit làng gis nga lu la dab baaxul. dafa am yenn nit yoo xam ne kenn du leen jox poste de responsabilité parce que mérito wuñ ko nekkul da leen ko. te xam nga lii ñii luñ ciy def ku bëgg woote ñu la wooteel. am ah. da ngay toog am woote ñu ne la am woote am woote kese ah. woowuñ kenn de non non merci woowuñ kenn de xamuñu lu ñuy wax léegi tey moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant ko gërëm lañ ko fa tegee ma ngi koy matale parce que lii lu ndaw la mm-hmm. peut-être que bu leen génne ngeen ne ah kon lii amoon na RTS. Mm-hmm. RTS li amoon lii moo fa gën a ndaw de. Ah, lii moo gën a ndaw ci lii moo gën a tuuti ci li feeñ ci RTS. Mm-hmm. am na yu ñuy wax ci kaw am na yu ñuy wax ci kaw am na ñuy wax dañ ko lijjanti di lijjanti. en l'éternel d'accord ba ci ay voiture de fonction ba ci leneen nag leneen nag leneen di ko ñi fi mhm. nekk euh, mami yal na leen yàlla jàppale amiin amiin te yàlla na yàlla def ñu am ay fit bañ a daw bañ a bañ a tàppet c'est ça surtout ak ñoom c'est ça un état doit être fort waxuñu ñu dóore waxuñu saag waxuñu dara mais il faut ñu rendre justice mhm. il faut ku sàcc delloo li nga sàcc duñu xaar yoon ba xiyaal ki téye li nga xam ne moomoo ko moo leen yow mi moomoo ko ni leen ko Bassirou Diomaye Faye waxee woon ba mu faloo ne leen képp koo xam ne sàcc nga te xam ne sàcc nga téye nga mhm. ñëw ci njëkk ak teraanga xam nga fi mu ne nii véhicule de fonction yi am na ñoo xam ñu ngi delloo ndànk moo gën mhm. kenn waxu ko ñu sàcc ay xaalis xam dem nañu xam nañu leen man kat lii maa ko def mhm. di jéem a xool nu ñu defee maratoire am ñoo taxaw ne dañuy taxaw di balballu te yàgg-yàgg dangay ngay peer donc nañ ko def ci njëkk ak teraanga rek moo gën a rafet dëgg la de ci njëkk ak teraanga financement yi jotoo ci ko man man de yàgg bi ko bàyyi mu dem Dubaay. man de bu ma bu may waxati ci dér sax xam naa dañ ma samay mbokk dañ maa war a yab man maa. est-ce que du sa business plan moo baaxul. <laughs> man mii ah. mais Pape Ousmane Cissé yow ah nga ma de xool yow yab nga ma de man xam naa ñu mën étude de projet mën ko bind baax ñu xool mais Pape Ousmane Cissé yow yabuloo ma eh, yow ci lan nga bëggoon ñu eh, financé lan nga bëggoon teg yow loo bëggoon teg yow léegi lan lu tax nga may laaj sama financement ci lan la parce que waa Mborong lay eh? déglu dama bëgg a xam. déet eh, Baboro damay bañ ñu yaakaar ne bu ñu ma financé damay jël xaalis bi yaa ngi dégg tamax sama yëfi bopp fàtte leen. léegi Boro n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire Pape Ousmane Cissé moytu ma balaa ma laa kudd. beneen bi ci topp mooy deer moom bax deer foofu mën ngaa laaj nabu koor mii li ma ci kas ak li ma ci wax. <laughs> jaabante naa fa ba sonn jaabante ba booy j'ai un business plan solide. bien travaillé. et des documents bel et bien protégés. maa jox leen ko ngóone keroog bu muy dem ca. non joxuma ko ngóone parce que euh, pratique yooyu moo fi jeex dàbbaliwaat pratique yooyu jeex na di. waaw moo tax ma ne dàbbaliwaat pratique ma jaar ci ngóone mu joxal ma maman ay ah, yooyu moo fi